Euh, dama xam ne bi àddina sosoo ba tey musuma gis lii ci histoire armée buy génnee armée armée buy xeex contre armée mënoon nañ ko dégg feneen fu dul Sénégal dafa ñaaw nag fii ay gor ñoo ne bi ñu indi seen jëkkër yi di leen jox logement yi di leen attribuer logement yi daa fekkoon ne affaire yi avion la ñu yor ñu xam ne suñ leen dëkkalee feneen bu ñu leen soxlawee bu ñu leen soxlawee duñ leen jot ñu attribuer leen kër yi ñu dëkk fi bi ñu dëkkee ci kër yi. bi baay bi jeexee ñun ak douane ak police ñoo amandoo même problème ñu yëg ni baay bi jeex na ñoom ñu ñaan ñoom bu ñuy ñaan ñun ñoo leen demoon xeex la ñu bokk ak ñoom xeex bi seen général yi seen colonel yi ñu jàppale leen ba ñoom ñu am tey seen kër ba ñu xamal ñu aussi fii baay bi jeex na depuis 94. pourquoi pas ñun tam du ñu demandé comme suñu morom yi nekk suñu wet ñun ñu daal di demandé ñu suñu moromu jigéen ñi suñu kilifa yi suñu mag ñi boog ñu ñu mag ndax fi ni ñu gisee nii ñun dañ fi am lépp la ñu am am nañ fi bureau am nañ fi lépp dañu yor suñuy mag yu ñuy jiite ñu lijjanti loolu ñoom ñuy yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba ñu am say ay kii yu favorable temps Ablaye Wade bi ñu demee Ablaye Wade mu recevoir ñu keroog délégation mag la ñu def ñu nag waa Wakaam yi ñoo àndoon ñu dem Ablaye Wade ne du génnee benn famille militaire du génnee kenn ndax ku nekk ak toi moom loolu lay ñaan ndax politique boobu lay def bi mu ñu accordé loolu ñëw toog mu ne du génnee kenn par la suite la yàlla def mu wàcc Macky bi Ablaye Wade ñu wax loolu Macky nga Ablaye Wade ñu yaakaar ne tey bu Macky ñëwee incha allah suñu lépp day baax kon day yeggale procédure bi mais dama gis ne nag Macky lu Ablaye Wade tabax rek bu ñëwee day wàccee te rafetul dañu ne état continuité la fekk na fi dossier bi xam na fi dossier bi taxawoon dafa waroon a xool dossier bi mu yeggali ko amul fu ñu jaarul seen ma Faye Sall moom ci boppam amul fu ñu jaarul pour kii Macky waaye dafa ñaaw parce que nag boo gisee jaarul par état ndax dafa ñaaw ñu ne état mi ngi génnee famille militaire état mi ngi génnee. ay homme de tenue dafa ñaaw lool si deri état. si fàttali ñu. Aïda Ndour laa tudd. waaw ah, soxna Aïda Ndour yëg nañ ne am na ko doon jéem a xaru situation loo ñu ci mën a indi leer. xaruwul kooku sama xariti jëkkër benn bakkal la démb chaque jour mi ngi kër ga démb ñoo fa nekk doo ñoo fanaanoo ba bër set ñun ñëpp démb si biir ñu fanaan amul kenn ku fanaan ci biir kër gi ci li ma dégg dafa doon jéem a taal boppam ci këram ñu génnee ko yóbbu ko mais deewul sama jëkkër woo na ko léegi wax nag sama jëkkër dara jotu ko deewul andi na andi woon nañ fi ay kayit yu tappale lañ ñu fi indiloon ndax soo gisee ma e kayit yu tappale kayit yooyu dara leeru si parce que ñu ne comico dafa soxla comico comico bu ñu njëkk tabax si Sénégal mooy comico bii ngeen gis ci ginnaaw moom la ñu njëkk tabax comico bu fi judd rek bii moo tax mu judd fi te li ma dégg nag ñu ne état ñu ne comico bu fi xasee am ci benn site mënatul amaat beneen ti sit boobu te ñoom ñu ne comico la ñu ne comico ñoo ñuy dégër piir waaye bu dee comico moo ñuy dégër piir te komikoo ci boppam ay homme de tenue ñoo ko moom lu tax ngay génnee doom di dugal doom pendant combien d'années suñu jëkkër yi ñu ngi fi ñu leen di coupé nag indemnité de logement lañ leen di coupé nag bi ñu fi toggee ba tey kenn mayu ñu nii de dañuy rey fañ dañuy fay chaque mois ñu coupé suñu salaire yi jëkkër yi ba li may wax ak yow nii ba tey ñu gaay pardon ba tey gaay ñu ngi coupé seen salaire yaa ngi dégg waa léegi ana milliards yooyu ñi fi nekk 30 ans 40 ans ana milliards yooyu xanaa tey bu doon dañuy jaay tey ñun ñooy njëkk ñu war ko teg ci yoon teguñu ko ci yoon biram ñu ne dafa waat ne moom boo gisee mu dellu soit dafa ñëw pour dëgër pir waa terme sud. kan mooy biram Birame Lo le biram Birame Diop le général Birame Diop mission boobu moom la du kenn moo nekk ginnaaw comico dama ne Birame boobu ngeen di wax moom ak suñu jëkkër yi moom ak suñu jëkkër yi seen i génération la woon fii la doon naanee attaaya fii ñuy togg ceeb bu neex bu ñëw di lekk ak suñu jëkkër yi ñu koy attaayal temps boobu mi ngi yem garat ak suñu jëkkër yi yàlla nag mooy bind te yemalewul. yàlla mooy bind te yemalewul ndax bu muy ànd ak suñu jëkkër yi xalaatuloon ne tey na nekk général ba mu toog ba mu war a mën a ñëw fay ñu jëf ji keneen moo ñu waroon fay jëf ji ku dul moom suñu jëkkër yëpp la xam ñëpp la xam àndandoon ak ñoom fu ne fii terme fii ma lay wax kër yu dee yi ñuy génne nii nan na fi attaay ba tey kon nag dafa ñaaw ñun lu ñuy wax encore une fois ñun bu ñu biram tey bu demee ba am doole tey biram mënul gën a fort état biram mënul gën a fort président Macky Sall kon affaire bi seetaan na ngi ci seetaan na ngi ci am na suñu borom yi nga xam ne seen dañoo dem mission lan lañu lan lañu am sa jëkkër dee na allo sa jëkkër dee na fu mu dee mission nga toog di xaar koor bi mu ñëw dëj yu métti fii ñu dund ko suñu morom yooyu amoo sa jëkkër bu muy dem mission mu dig la mu ne su ma ñëwee naa la defarali naa la defarali ngay rêvé ñu toog ñu ne sa jëkkër dee na ñu toog ñu ne tey la ñuy indi sa néewu jëkkër nga ànd ak say moromu jigéen ñu gunge ñu dem suuli sa jëkkër ñëw toogaat ñii ñu dagg seen tànk yi ngi fii fu ñu ko jëlee ci guerre ah ñuy dudd loolu ñu yaakaar ne tey problème bu ñu munti am tey suñu général yi suñu colonie ñoo waroon taxaw tey ñu dimbali ñu tey ñun ñu de ñun ñaanuñu dañu ne nañ ñu jaay wax ñu leen ñu may ñu nañ ñu jaay te buñ ko évaluer ñu ko évaluer ñoom ñoo ñu war a delloo parce que c'est des c'est des milliards 94 ba léegi nit ñaa ngi fi dëkk c'est des milliards kon nag man li may ñaan Macky Sall laay waxal Macky Sall la ñuy wax père de la nation mooy Macky Sall na xoolaat lii toogaat xool njabootam ñii ay gradé lañu ay njabootam lañu. ñun itam ay njabootam lañu te ñun suñu jëkkër yi tey ku fi nekk général wala colonel tey yàlla ak suñu jëkkër yi ah tey ku nekk di taxaw ne maay général nangam suñu jëkkër yi ñoo tax nga yëg fa jàmbaar jooju ñu nekk jàmbaar na jàmbaar boobu la ñu nekk ak ñoom nag li ñuy toog nii ñun du sommes des amazones fii day métti rek waaye nag dama bëgg ñu xam ne képp ko yàlla takkal taggal jox jox mbagg na nga xalaat ne bés suuf si da nga ciy dugg fii kenn amu fi dara na ñuy teg lépp ci yoon rek kenn amu fi dara ñun autorité yi Wakaam yi paraît-il que ci la bokk Bathily Diallo Bathily Diallo le maire de Wakaam mi ngi ci oto yi ngeen gis fee ci ginnaaw yëpp moo jël garage yi toxal leen fii mu ne ñu dencal ko ko la moo ko moom. defu ci dara moom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo dil dil bii. la jaraaf de Wakaam dégg naa xale yi biir dëkk ba di ko wax ndax xale yi biir dëkk ba ñoom ñoo xam seen kilifa dëkk yi am na ñu ñu ñu cité ci jaraaf Wakaam yi. baax na donc euh, nekkoon réaction soxna Abi Ndour moom nga xam